man dama ko bëgg barki moo man nag du ay caaxaan man damaa bëgg Djiby Fall daa am jikko yu nekk ci bu mu commencé jubtee rek ba waaye ku ko bëgg laa waaw jikko yi mu commencé jubtee nag waaw na ko bàyyi nag amoo mën a jooy nag waaw noo nee naa ko kuy jooy du nax kuy jooy loolu laa ko wax ah, man de man man aji nomoto mii man daal lii daal man nee naa ko kuy jooy du ndax kuy jooy. mënta nekk. loolu mënul nekk. waaw dëgg la. te sëñ Abdul Ahad Mbàkke nee na. Mhm. nit ki say kàddu ren dafa war a méngoog say jëf yi daaw. mais loolooy say jëf yi daaw say jëf yi ren say kàddu ren te nit ki lu mu nar yàlla rek moo mën nar def ko waaye lu mu nar na ko lu mu lu mu yàlla rek moo mën wax def ko waaye nit ki lu muy wax rek na ko nar na ko nar dégg na ko nar. Mhm. waaw mooy na ko nar a def. kon nag su ñu amee cëslaa yooyu xam nga man damay duma toog fii du toog si émission bu jug rek te dëgg gi ma ne la Serigne Touba nee na wala man la maam ab maam Baye nee na wala man la maam Abdou Aziz nee na loolu rek firndeel ni ñun dañoo gëm ni dañoo am bilan comme ni ko dafa comme ni ko sama sœur waxee dañoo am patrimoine bu bu bu doy patrimoine muy sunu kilifa yu mag yi. Mm-hmm. bañ na ko ba dañu bay toog naan dañu leen war a jàngale ci école yi. parce que dañu am taxawaay bu ñu am. bu nga xam ci développement sax mm-hmm. mais Mame Baye Niass moo fi bind Afrique pour les Africains. Mm-hmm. livre la bind ne. l'Afrique c'était un grand intellectuel. bi mu koy wax boobu. boobu boobu boobu wax ko jafe na. brillant intellectuel. muy bind naan l'Afrique pour les Africains un grand intellectuel il est universel Mame Baye tey titre la ñuy am fu nekk ci àdduna ñuy ñuy taxaw nga taxaw ci àdduna ci Afrique dooleeg bi mu am sax ay Nigéria ay Niger. jàpp naa ne sax amu ko fii ci senegal te pourtant fii mooy fii mooy euh, fii mooy euh, réewu nataalam ma ñëw nag ci li nga xam ni mooy Jibi Fall waaw yow nab yow konaa lan moo tax xale yëpp di di la laaj naan ma laaj leen nab ah, euh, konaa na Pape Djibril Fall lu xew waaw qu'est-ce qui se passe j'ai pas posé cette question là au hasard internet laaj leen ko ana Pape Djibril Fall lu xew seen diggante waa serviteur dama koo bëgg xam naa loolu la ñu xam. Jibi Fall dama koo bëgg. boole bi lay wàññi rek boole bi wala wala loolu loolu boole bi. boole bi lay wàññi ndax. Euh, Olof Njaay dafa ne kuy jooy du ndax kuy jooy te Jibi daa gaaw a jooy te réew mii dañuy jooy sangoo suñuy rongoñ ndax jafe-jafe askan. ci jooy lañ nga ñëw ne da leen di servir tuddee sa parti xaw ma sa coalition serviteur. ba pare bu ñu nee mbirum làcc nga bënn say bët di jooy. loolu lan xamul te dañuy jooy rek sama genre damay jooy. dañuy laaj man damaa gaaw a jooy heure bu ma gisee jibi faa faay bënn bët yi ma bënn bët bët samay bët ànd ak moom ah, te loolu mën naa ñàkk. ndax bëgg dafa fort dëgg la heure bu bënnee bëtam ma bënn samay bët du ma xam sax li muy jooy waaye maa bëgg ji bi faal kon ji bi euh, en tant que politicien fi nga nekk baaxul mooy que tu es un leader te leader dafay nangoo encaisser. Mm. te boo xoolee Jibi Fall maa ngi koy wax nag ci comique mais wallaahi li ma leen di wax dafa am solo parce que Jibi Fall xoolal ab bi muy nekk euh, analyste wala wala muy nekk euh, journaliste wala muy nekk chroniqueur mm-hmm. tey Jibi Fall dafa amoon benn réputation bu extraordinaire te pour man réputation boobu noonu su yokkul man pour man Nabou Yadane warta wàññeeku. kii kay mooy yaa daan nag moo daan nag moytu ko de xale bii. moytu ko OGM la wax naa la ko bu yaa xam ah, naa baax na xam naa luñ ko waxal mooma <laughs> mais ko waxal waa léegi damay jooy man dama bari émotion nii nga may def jooy nga ni ma dama kon nag kon nag euh, ajaratu nabu Jibi Fall lii laay wax ci moom mooy que na na xam ni réputation dafa am solo démb dañuy waxtaan suñu kër ba mu yàgg ñu tudd benn tur mm-hmm. ñëpp ne ay waay kooku ak mën a nàngam ak mën a wax li ci gannaaw dëgg mm-hmm. booy yëpp gisandoo benn gis-gis ci moom te du politicien dañoo dëkk ci koñ ba rek man leen nag bu ngeen di seet ku gémmiñ jàpp dëgg mooy façon nit mooy façon nit boo xam ne foo ne dama ne ñu ne ay waay lu muy wax amul te loolu ñëpp ñoo war a daw loolu parce que loolu mooy cat cat boo koy gis dëgg loolu mooy cat mooy mook ouvrier bu am mën métier te du wax dëgg kenn du ko liggéeyloo mook téyeur bu mën métier te du wax dëgg kenn ko liggéeyloo boo man man man man am naa sama benn xaritu. téyeer jërëjëf kon naa jërëjëf. bi ma bi ma koy xool ji bi Fall laa koy xoolee parce que xaritu téyeer boo xam ne ah, euh, événement moo jot mu jël ñaw ñawu faatu faatu pata bi nga xamante ni mu ne ko maa ngi ñëw jël sama ñaw damaa war a faatu pata la tudd damaa war a julli ji xombal maa ngi nii di ñëw <laughs> waa léegi lii mooy lan yéen. pata bi daa am lu ci nekk. ñaari da a jàpp a pata. <laughs> déedéet man moom ma oh. ne ni toog lu muy ree. <laughs> man de boo wax man. man waxu maa ngi dinañu tëggal ma <laughs> boo xamante ne ni yow kenn. xanaa ndamu nag talaata la. dëgg la doxul ci diggante bi. non bi je ne me sens pas visée. parce ci laa bokk non yow temps fii man gisuma fi Pata man ci kër si saal bi man gisuma fi. kon baax kon maa ngi wax ak Fatou Pata. <laughs> Fatou Pata yàlla xale. bañ li dal Bart dal leen. am na leader bu dem rek mu naan mu génn def conférence de presse man tudduma leen. Hmm. dégg nga. Hmm. dafa xew nag benn benn wax daa génn daa moo ñëw wax moom mu génn def conférence de presse. Hmm. Fatou bi mu ñëwee ndaw mu ne ko da damay jël si sama ñaw. <laughs> mu ne ko damaa génn. waaye comme moom wóoluwul loolu. ca si kàmbaaw la atelier ba nekkoon sama xarit la dama koy suturaal du ma wax turam ma ngi dem ak ma bi mu koy woo. bi mu ko woowee ba nopp ne ko na ne ko damaa génn ndekete moom mu ngi dox si dem si si biir si atelier bi. waa ji mu ngi toog ci kaw taabalu machine bi. mu mu taxaw ba séen ko yëkkatiwaat téléphone am woo ko mu ne ko maa ngi nii marché zeng dem tisi bi laa jënd ji nii lu ma. def finition moo ko woo. di waatu pata moo wut maanaam daf koy woo mu a ko dinaa la indil ñëw indiwu ko. Mhm. léegi mu def déplacement jël oto ñëw ba ci àngalu koñ bi woo ko ne ko maa ngi nii sa wetu atelier. waaw maa ñëw jël si ñaw bi mu ne ko bul ñëw nekkuma fa maa ngi marché zeng damay jënd damay benn tissu. Mhm. wax ji doyu ko mu dox ba ñëw ba ci àngalu koñ bi. Mhm. seen sawaay mu toog ci kaw machine bi. mu wowaat ko téléphone ne ko yow man yow foo nekk mu ne ko maa ngi nii marché zeng nee naa la bu may ñëw di la woo nga ñëw jël si ñaw bi. Fatou Para bi mu duggee ci atelier bi tiim ko ronga ñi dafa sa daa sangoo ronga ñee jooy ba tey waxut mu ne ko ndax yow yaa ngi yaa ngi nii mars zeng mu ne ko maa ngi nii di doog si léegi laa ñëw xam nga ni kooku gémmiñ a ko jàpp parce que wax lu dul dëgg day am harmonie mais loolu laay wax ji bi mënoo ñëw ci manifestation ñu yuuxoo la nga dem ñëw ne ñama doon yuuxoo dañu ne ma ethnicisme ay ñun Sonko lañ àndal wala xawma Pastef lañ àndal Casamance lañu dëkk même loolu bu doon dëgg la nabu mm-hmm. même loolu bu doon la cohésion sociale en tant que leader politique yow yooyu dafa war a tax du loo war a lalaate ci kaw ci maanaam ci ci ci kaw ci askan bi mm-hmm. parce que amul lenn lu muy yokk mm-hmm. parce que man gis naa fi koo xam dafa taxaw ne man Touba laa dëkk Ablaye Wade laay votel am na ku taxaw ne man Touba euh, sama xarit sëñ bàkk bàkk Dolli toog nañ plateau mu ne Touba moo ko gënal Sénégal te loolu bu ko Ousmane ko waxoon bu Ousmane ko ne woon man Casamance moo ma gënal Sénégal tama du ko ëpp buum eh. ñëpp a naan ay gis nga ethnicisme day xaajale léegi stigmatisation boobu ñuy stigmatiser waa Casamance loolu la ñu contre te Pape bi mm-hmm. warul bokk warul bokk ci ñuy promouvoir loolu kon moo tax ma ni na génn ci mu nekk il peut faire mieux que ça wallahi parce que jàng na il est charismatique et encore une fois dañ ko bëgg ah man de damaa bëgg Djibi Fall mais nag buy ñuy bëgg nit dañ koy bëgg ci dëgg ak constance la mu ne la mu jàppoon ba am lii. bu mu ko bàyyi jig na ko. waaye dem ci manifestation bi yàgg say moroomu nawlee fa ne boo fa génnee di wax loo xam ne ña fa nekkoon ñépp dañ naan kii li mu wax amul. loolu defe naa nekkul lu baax ci carrière politique am. Mm-hmm. loolu rek moo tax ma naan ko Pape Djibi euh, bàyyil jooy yi te encore bàyyil boole bi. Mm-hmm. lii rek la waaw mee du dara. xam naa day kalaame rek ak askanu Sénégal pour ñu wax ak xale yi ñu koy bàyyi nag muy discours wax dëgg yàlla. waa xale yi nag dem du discours fu mu dem xale yi di yuux xale yi lu ñu yuux tamit. non xale yi nag war nañ koo bàyyi mu wax nag. waa wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. man de wax dëgg yàlla. je suis kalaame askanu Sénégal parce que jooy yi tamit xam naa ne du ko gënal ndax jooy yombut faaw nga teg soble mbaa nga diw rob ci say suuf bët. jooy moo yomb oh, da cay yàq moom avant ñu ko <laughs> yuuxoo mu ngi jeex ndekete. man pour man da ngay wax rek. waaw man pour man yuuxoo yee tax mu jooy. mooy dernière chance waa Thiès de. mais fan yee damaa gis benn vidéo buñ ma yónnee. TV Wanda. muy ba bàyyil xale bi yow euh, bàyyil xale bi ñu waxtaan na ngeen def nag. dëgg euh, nga ba may ba ma ba ma jékki-jékki yónnee ma benn vidéo boo xam ne ndekete ca classe ba la nekk doon waxtaan ak ay élèves ba mu yàgg mu bënn bëdi kon ndekete moom yàgg naa jooy mais daal ah, il waaw waaye yow nag boobu nag. dafa doon waxtaan ak xale yi bi teel. ca la comédien yi génnee woon. xolama rafet. ak ki téye woon loxo ba ne ko ne ko ne ko kii nii. xolama rafet dama tase ak yow borom borom xol mu rafet foo ko fekk. xol mu a jooy laa. jël leen ci yi ngeen ne nabu noo tudd mu jooy. nabu noo sant ma jooy dama gaaw a jooy arrêté leen. waaye nag ba kii euh, mami Koor. moytul kii OGM hmm. mi. mami. ah baax na. Hmm. mën nanoo waxtaan. ñëwal ayca ayca man. mami réew muy jooy de ku leen bëgg a jiite da ngay feral say rongañ nag. ñun ñu ngi jooy noppeegunu nanu dimbali rek waaw bu ko neexee nag na jooy waaye am nañ droit conseiller ko ne ko pap bàyyil jooy yi ndax fi nag ñi fi jooy bari nañ du dëgg ña jooy yëpp di juralu leen njëriñ hmm? xalifa sàll bi di bënn bëdi dañ koo tëj ci kaso yow yaa wax xalifa dafa jooy jooyoon na fi hmm? du moom hmm? xale yi de xale yi nag xale yi nag nanu bàyyi yuuxoo yi nag wax dëgg yàlla non nanu ko bàyyi non nanu ko bàyyi parce que xam nga la moo tax le combat n'est pas là-bas te yow boo saa yoo ko yuuxoo mu génn jooy da nga koy bàyyi. surtout am na ku may wax naan ma na bu moytul di jooyloo mag parce que mag buy jooy dalay tojal. xale yi sa loolu jigul yow de di topp dina jooy. jooyu jibi faal yi doy nga waat de. mën naa bañ a jig sax xale yi. <laughs> dëkk mën na leen a ba a jig kon na leen nan nan nan ko baax parce que tamit am na loo xam ne day bëgg a ëpp nag parce que moomu leen nit ñi passe unique du fi am bàyyi leen jàmbur. ah moom it nay wax li ni mbir yi demee rek moom tamit. <laughs> kon fu mu ne nekk ci digg bi daa <laughs> ah, àtte fu couper la poire en deux. dëgg la nee na dañu équilibré. wax na dëgg nag dañoo war a équilibré. wala gars yi xojoloo. ma ni xale yi gonek passé fi dañoo moomul kenn laa la wax ba da ngeen koy bàyyi mu wax yow kii dina leen jooy de bëgg a jot nii bala kii jooyam koo xañ de nabu wuyu ma dañuy fo rek dégg nga dina bañ a que booy moom complexe wuñu ko yàlla bind dañuy waxtaan nag. xam naa ne bi ñuy ñëw yow paasal seen bopp kenn yemu leen ci oto ñu ñëw ñoo indi seen bopp. ah waaye nag lu tax ñuy jooy boo ci bëggee di leen yedd day mën a ñàkk de. ah mais wa mais Ousmane. moo tax sëñ Baara ma nga ñëw ndeysaan sama xarit Cheikh Baara sama xarit ñëw naan noppi leen Ousmane message na ma kenn faale <laughs> message message na ma message na message baa ngi. ma ni wuy sama ndey yow de xamoo xale yi. Ousmane sax bu changé woon ñu yuuxoo ko gën a amay message na dafa am ku mu ci doon seetaan ci eh, est-ce que xam nga ni marche F24 bi marche doo euh, euh, manifestation boobu doo da doo manifestation dootu ko dàqati. doo dafa neex am kuy wax voilà xale bi téléphone am la jël gis man xale yi ku leen yedd sax duñu la déglu. mooy xale biy nelaw. waa kooku nag man dag ah waaw kay maa ngi dégg sama xarit Cheikh Bara maa ngi koy nuyu nit ku baax la. muy nelaw ma ne ko ay waay yéen am leen yar nag. yéen Sonko démb yàggul dara démb la leen yedd tey ci tegu ngeen def lii. léegi nag foofu laa bëgg am leen lu ma ci wax.